asalaamaaleykum mbooloo mi. ñoo ngi rafetlu taxawaayu ku ne. mu ne ñu ngi rafetlu taxawaayu kenn ku ne fii ci ci taxaw teewaay bi. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax taxawaay bii. ndax taxawaay bii. jombul kenn jombul kenn. ku nekk ci na ko waajal. ku nekk ci jur war na ko waajal. te Idrissa waajaloon na. te Idrissa waajaloon na ko. ñun ñu ànd ak moom. ñun ñu ànd ak moom. xam nañ ne. xam nañ ne. gor la la. jullit la nit ku maandu la. nit ku yiw la. nit ku am gëm-gëm. amoon gëm-gëm la. te lii da ko waajoon. te lii da ko waajoon. bett ko bett ko. naam bi mu ko ñëwee nii. naam bi mu ko ñëwee nii. bett na ko bett na ko. mais da ko waajal. mais da ko waajal. allahu bi ko lii di dal. ñoo ñoom ñoo ànd. di dox di dox. ngir réew mi. ngir réew mi. ngir askan wi ngir askan wi. ba mu ne dafa grippé. ba mu ne dafa grippé. ñun ñëpp dañu tiit. ñëpp dañoo tiit. ndax li fi am. ndax li fi am. ñu sant yàlla ñu sant yàlla bu baax ñu nangu ko ñu nangu ko. di jaajëfal njabootam. di jaajëfal njaboot gi. di jaajëfal soxnaam. di jaajëfal soxnaam. Ndeye Dramé Ndeye Dramé. waa kër Idrissa. waa kër Idrissa. daañ ko gërëm daañ ko gërëm. daañ ko sant daañ ko sant. taxaw na jëkkëram taxaw na jëkkëram. li mu mën def na ko li mu xam def na ko. samedi dafa doon jooy. nee na samedi da doon jooy toute la journée. dimanche dimanche. bi Idrissa tane. bi Idrissa tane. muy sant yàlla muy sant yàlla. ndekete yoo day tàggoo ndekete yoo day tàggoo. allahu akbar allahu akbar